Yo, <coughs> we have translation. Yes, sir. Into Wolof. Into Mali. You do it into Wolof? Yes, sir. Oh, yeah, I will do Wolof. I can do Wolof. You can do Wolof. I can do thing, I do Wolof. Okay, Bismillah. Bismillah. Yo, bis... Bejama be kontona, bejama be kontona. His Excellency, David Dawo, muna mungkin nyet sinno kontano itandi ninna ñolu be defum ne ni mu nge woné kontano bi ci ñu nga xam na ñoom nga ma àndal ñëpp nga women taral bulu jambi ñim ñim ñim ralito jambi Mina li nga xamne mom la fete fi sen loxo fi tay bari nga wana be kontondoro folo la brikama na brikama conscience committee fulol la Mina nuyu bi mu ko dooree ci nga brikama constituency chairman ñaari chairman yi fi neka alaji senkere bojang anin buba jawo mbay kontonna ini la comité ni la ila ila pati dingoluk birkama jang alaji senkere bojang ak buba jawo ñoom ñoo seen ah, comité member yi ak seen doomi pati yi nga xam ne ñoo ron bari katambi tollambe birkama be kontonna mu ne gannaaw ñaar ñi ñoom ne ñoom lan tudda mu ngee nuyoo birkama yépp na birin na diino ñaaton la foni na na na aado ñaano ñaaton ko birkama be be doore ko ci kelifa diine yi ak kelifa yi ada yi nga xamne ñoo nekk abrikama fi na Brikama bamba ngol men ɓe jam eh, suma Sumakunda Mansarin Su Sane Kunda Sukuta Kunda Hawla Kunda mbebe kontona Bojang Kunda mu ne kabila yi nga xamne ñom ñoo nekk biir Brikama fi ñi nga xam ñom ñom lam tura ni ñom ñep la mo nuyu itolu lu luntangol men ye sindi bring jiddale mum fo neemale mum Brikama be mbaa be sen gan yi nga xam ne ñoom ñoo leen téral fi mu ne mu ngi leen nuyu yëpp ñoom ñëpp bring waato melne eh, ma tombong i nan na denano kulli la janne mine bin tane ne ma mom la fale ñaw ngente pati bi e eh, aketa tole be jiki baati mine lolu indi on na yakar ci ñun ka du nga ma tolon nga ma dar yolon nga ma la kaf ko to fa tolon ne li taxone yakar moy dañ xam turi ma te xam nañ ma fu mu taxaw seen man-man tam xam nañ ko bari bi nga men tara jang a tambita nga men long e ñëw mbe kumoo sutiyandi laa mi ne wax bi dina ko gàttal bi naji ñanañin rali o mi ne rali bi tey bi wala mu kanna pati fintindi ka kulli mu ne rali bi tey bi mooy pour ngente pati bi ne tey foog na ne tey moom wo konto ton safo alhamdulillahi ala en ndema wo keta ku keta keta ñaama mo mo be so sere ajande ne alhamdulillah nit ñi fi teewoo yëpp war nañoo sende ne ngente nañ ko idu ñim pati yo ben ka fogo de nano la mu mu ne pati bi dega la liir la xale bu <coughs> ndaw la mbe do man din drone fo la lay jee mu ne pour wane yëf yam nekkam liir lu ndaw rek lam cee wax parti yo la mooy dun ko ali yàlla ñaame parti yo la meta gambia la meta pati yo la jëlal mu ne pati la bi nga mu ne pati yaga nañ gambia te yaga ngeen di gis ay pati biir gambia fii ntol faŋo biriŋ siitan ko mbe ñiŋ kuwo kacaa la mu ne ñun suñ ko fa biñ toogoon be xalaat ne dañoo waxtaan ne fi pati bi mais yaa sambanam ban Gambia la banko wo kuwo kacaa wala ñiŋ pati ay bondi mu ne loolu li ko waral mooy réewu Gambia fu mu toolu yëfam waxtaanam moo tax yëfi pati bi ñu sos ko nga Gambia la ko miiran siitan tolu Gambia diŋol dammaalu mu ne xalaat nañ mbiri Gambia ñun doomi Gambia ñu ni neen nga nga nga ngam fan konti boo ñine a ah, xalaatoon nañ mbiri Gambia ba pare a ah. seet suñu boppam ngam seetlu suñu boppam ngaje ko ñin sanjit muwannin fulo men militaire lu be masakunda ja ye banko dul damento ngay nga jube mine gis nañ ne ñaar ah, ñaar fukki at ak ñaari yu yu weesu yu gannaaw noonu fi ñu yóbbu réew mi gis nañ ko ala omo omo omo soldat o tamandirolten te hamnen lolu nguuri soldat bo ko waral ya kata ya e molu nene ka fo hanen ga patiolo ne bari moɓe sonto ko military man sakkundala woti a wona degala soson nañ fi pati wonte doxalin buñ doon doxalee réew mi ñëpp xam nañ ne nguuri soldat moo fi nekkoon ana la saay saay yaa te nguuru soldat du ñaaka daf dee ànda sa ay yëfi saay saay ana la doo ko ak seen ñàkk a xam liggéey tamit na ci anen ka trimbaliya moolu la te di di soxla ñi toroxal nit ñi wo wo be o be nga wo be suute ak wokono la mi loolu yëpp seetlu nañ ko ci ndoxali nguur li nga xam ne moo fi nekkoon xanaa tumay tolu ye fankumandi patio la mu ne bu fekkee ne oyon nañ seen bopp political party sax barentul nga loon na ko ñu military do military wala tamandir ñale ma ñun xamoon ne ne nguuru militaire nguuru soldat moo fi nekkoon te nuñ doon doxalee réew mi yëfi soldat moom lañ ci doon def wo kono nag Gambia din jamaawul ta yeewu koo kele kataman tilin mu ne loolu taxoon na doomu Gambia yu bari jogoon pour xeex mbir moomu noonu nditte jubutoon a keloo meeta a bunda a keloo bunda fana mu ne xeex bi fa nekkoon yaa yaagoon na lool doolu ye fansum partiyolu loo mu ne xeex bu fa nekkoon a yaati woon na lool taxoon na be am na ñi ne dañ sosoon seen parti doolu hannde imam partiyolo ye ku kotoŋolu ke isi isi o man sakunda marar yawo kele ñaamee ñi mu ne gannaaw loolu ñu sos parti bi amoon na ñeneen ñi nga xam ne ñoom sosuñ parti bi waaye am na ay def-def yi ne ñoom lañ defoon pour jéemee fii nguur boobu doolu ñin banko bula mu meke tada banko kotong do bari be je ñawo ñaayi be banko o ku jawo ba kele kam banko kan mu ne am na ñi nga ne jogoon nañ ci réew yi Gambia mi dem toog bitim réew waaye seen toogaay bitim réew yëpp nekkoon nañ ci xeex bi yaa wo keloolu wa masakunda jawo a bonta a botankunna mune he xeex yooyu yëpp yu fi nekkoon yooyoo taxoon ci ndimbal yàlla sun borom 2016 ñu jéynee nguur boobu noonu moo fi nga ne mo fi nekkoon wo wo pour ka kuwo andi dron mune ne pour rek ali yaalon ko patiyolu men ɓe carin banko kanjan wato la mune a ngam nañ ne pati yu bëri ñoo fi nekkat jamono boobu noonu i d'accord te mo kilindro londi mine pati yooyu nonu waxoon nañ ne dañ doon tànn benn nit rek ñu taxawal ko mooy collation iɗum negatuma ko ta fana te fekka su collation bi kuñ taxawal bu ñu gañee aɓe men tamande ka fo transitional government mine ne kooku li moo doxal mooy transitional government mooy ah, nguur mi nga xam ne dafa dox ci lu gata omo omo banque banque kantalale ta manque manque manque banque tiyo fo wade banque kantalale mo fo janni banque o ɓa fansotola e mool tombon mu ne te soo waxee transitional loolu dafa mel ni nit ki nga xam ne dañ koo dénkaane mu aar ko ci lu gàtta rek o waatitungo kono mu ne ci lu loolu noonu isi luwa lu juubee men luwa kurŋolu men no ñin militaire yo tuje yewolu bondi je luwa ɓetol londi pour banko sa fansoto toña kono moolu laftan men ne wo si isi karto fayi woy mun ne ci lu ci waxtu noonu benn ci seen liggéey nekkoon na pour seet luwaay Gambia luwaay nga ne yaaxa nañ ko ci jamono militaire yi ñu jéemee leen pare taxawal luwaay nga xam ne ñoo génn waatole wo pati o pati olu men yo coalition o fomi tol fankolo kana tambi sangi sabala te mu ne si jamono boobu noonu ñoom nga ne ñoo sos coalition bi waxoon na ne seen waxtu du romba ñetti at noonu yooyu lañ signé woon iɗi wola fintinde gambiyankolu kam banko kan janim bantala banko kan ka fo alim ɓe ɗen ñoo kam pour ga ñin kuru yabundi banko kan te sen signé yefi ñetti at boobu noonu moom lañ jaay wone ko waa doomi Gambia ak ko nekkal ñu ko nekkal ci biti ɗum kayitande fana ko i suulata banque kantala doronde la te wone ne ñoom luñ bëggoon koyɓe men kele ja sa signé ko nin ate bota je ate lola kote ke carte carte o ngine kan te mune waho nañ ne système wattan ne kooku noonu ki nga xam ne moom la ñoo jiite moom bu jamanoom ñetti ati suñ pare moom du taxawaat ci yëfi karta amanta ko kamɓe jama yew ka fo le political agreement nga wole banko mool ye ole mute fe ala ye fana nata tam fee nga banko soto mu ne ay waxtaan yu bëri yooyu noonu yu mel ni lu ñoo wax political agreement ñoom loolu lañ defoon te yàlla dimbale réew ñu am cadre bi ñu jéemee nguur bi fi nekkoon a ah, bitum amanta o parti mendi coalition o dada ay mel na ne ñu nga am ne ñoo sos coalition bi birin itoro sita do yabaye idun dama sakunda kono bitum waaye ñoom buñ demee ba duga si nguur mi amunda ah, ngaje e eh, eh, foroya jamaatiña sanfolo a ah, gis nañ seen at bu njëkk bi yaa xam ay ndigal ndigal yu bëri yi xam ne joxe nañ ko Gambia yaxa nañ ko sangi saba ko moomam fota ko mo kana o fo a ah, ñetti at yi nga xam ne moom lañ waxoon waxoon nañ ne kenn bu mu wax yooyu noonu ko kaafo fana banku kantala me men kele ja kana lo koto ke yo fana ko fana o fana bondi jo fa fan sum patiolo ndilal sayi te ñi nga xam nañ ne ki nga xam ne moom lañ jiitaloon pour mu nekk fat yu gaata kooku tamit nekkatul foofu si yu gaata fu mu ne ni moom sas na patiyam sax wolu bee sotatale loolu yëpp lu am la waaye nag même fengo même fengo mo même fengo mo kesoote waaye nag loolu yëpp am na waaye lu si gën a am fayda walamo bankoye chance soto pour isi moo tombon iɓe men kela jee men si kete banko ñaato réew am na yoon am na bunta pour mun a tànn nit ki nga xam ne dina jéene réew mi si façon problème yooyu noonu yóbbu réew mi si kanam so ɓelentelo nga banko la ko politique o ko nga kisi nga nga nga peesa nga review ah loolu moo tax GFA parti bi buñ seetee mbiri politique bi nu moo demee fii seetlu ko nga parti olu jëm benn ba loolu njàng gis nañ parti yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ha man man man kuji man fenjeje men na koye ñaabo buñ seetloo parti yi fi nekk yëpp amul benn parti bi nga xam ne gis nañ ne parti la bi nga xam ne seen taxawaay doy na suñ bët kaatu ni amanke koye forondi yamen ke waye bulo noondi ah su nekkuta ah, seen loxo yi nga xam ne dañ leen tilmal si ay baat yi njoye Gambia yi ñaaha woto sa sa jefana ila tamandiri ñala ye silol silol tamandi même manque siloti si badin fasa ni si fasa lu ka kul tamandi wala ñam gis ne gannaaw loolu noonu baat yu ñaaha ñoo doxale nguur mi si boppam mooy xeet xeet ak xeet ah famille ak famille diw sangam fii la mu jógee diw sangam ci kii la bokka façon xeex boobu noonu lañ ñii ni Gambia naataaje fana e mam bala fa soto men sembo doyata banko kam musoolu nin eh, fondinke la e mam bala soto e te gis nañ ne ñun jiyé te gis nañ ne nguur mi fi nekk léegi amuñ yërëmande ci jigéen ñi amuñ yërëmande ci ndaw ñi xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi sene laalu sangi saba ibi kele tiyo sanno a ñaama béykat yi tam suñu moom de mënuñoo jaay seen gerte bi nu waree. sene laay man turoo di la. béykat jowloo ko am jiw. ima engrais di la. jowloo ko engrais. ima ima extension eh, staff eh, sambaya pour ay abe eh, maa koy lay silo tam seno tamani yaama ima woke. jowloo ko liggéeykat yi agriculture ñi nga xam ne ñoom ñoo yore xam-xam yi agriculture bu ko defee ñu mun koo dimbale. faala tiyan dingo mi nga a soto a taroo la duma dingo mi nga a soto a maa a ko ak loolu yëpp béykat bi li ndaw li nga xam ne moom lam lu def ko am ci pour jaay ko tamit loolu tamit nekk problème iɗum amanda wole ɗia ni sango sandin traito wato sile isa kankola ko traito ɓe kelele tiyeɗa ɓe ke ɓari kese ɓe kaje koɗi ɓe ka finti traité ɓe kake te gis nañ ne at bu nekk bu traité joye dañ dee wax ne traité jot na traité jot na waaye duñ dee gis dara woto ni nga tuma men kawo ke te gis ku nga ne moom moo dee def loolu bu bulee def loolu imam balafa soto eh, baadooloolu ye ani ani mënu man semboo soto bankoo kan kon ñun mun nañoo wax ne nguur gi amul yërmande ci baadoolo yi ak miskin yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi idi wo parti seyo mbe kon coalition o londi parti yooyu noonu nga ñoom ñoo taxawal coalition bi wo taamandiri kurongo i bee buloo baa kono la yëfi doxalin raw mi mi nga xam te baawut ñoom ñëpp seen loxaan si biir tubandoɓe doole bulo e, noota je sañji kilim fulay noota jele am na ñi nga xam ne ñoom seen loxo ñun si tili ay boori benn adresse ñu jénge loxo waaye loolu taxut ñun ñëpp xam nañ ne seen loxo tilim nañ ci so walayati ko loolu moo tax ñun jiyefe ñu gis ne pour que Gambia maa koy pour dimbale Gambia e nte nte nte yaakaar noo la ñun patio la mëne be loorin mënuñoo teg suñu woleyatinan konga gambia patilondi mbeyalon kom fango talamu na hakkilo ne na ganiyo men soro ba gambia bankole ngawo ngawo yitandi bankudigol la ni latan na nsi wo tamandi nga banko bonde aɓe tembo men loolu moo tax ñu sos parti bi nga xam ne mooy GSA parti bi nga xam ne Gambie yi ñëpp ñoo ko defee doomu Gambie nii soo leen ñu dégloo ngeen nangu suñ baat ñu jéenee réew mi fu mu ñu doxal ko doxalin bi nga iɗum wolamo kuuta a alan ko sawi mbina wulta walla ɓaawo ɓiyinga ko liyo keɓi toon kabo ɓiila mbe wole tamala banko kan kayitande mawlula te ñun jiyete loolu ñoono taxa jot te fum nani tey ngente nañ pati bi waaye gannaaw nden ngente bi dinañ wow rew mi yëpp be mu daj diyamula kendel la diyamata jayi kuma kendel fo waxkat yi nga xam ne wax nañ fii seen wax yi wér nañ te tëral nañ bu baax i kooɓe diyabala banko mole si carte o ɗin to la pati o la ni élection o siita te wakkat yi nga xam ne ñoo fi wax wax nañ ne ñu ngi ñaan waa Gambia pour ñu jox ñu seen karta yi bu waxtu karta jotee idu wo wo wo ñidi wo wo beteata bari wo bu kana abuka abuka sono yawo ñama akana doku kendo la kan idu wo warama mu comité la na constituency comité lo mu ne loolu wax bu wor la waaye wax boobu noonu du ko mutal mooy liggéey bi nga xam ne dañ see takka seen te takk ndiga bi dafa jógee ko ci comité nga xam ne lañ sos jiiloomi yen iɗum nañen kafo kono janno cabanol ɓeɓe jang tesi mbi tewoɓe fi kemani yeb ñum fi en nappoɗe netewol fana bi jang ñu am ne ñoom ñoo nekk ak communauté yi tamit ñu ngi fi. oto mbaafale kenoo fële bi tum. te ñooñu ñoonu mag leen a yebal ne. liggéey bi jot na. doo siita. liggéey bi jot na. men tuta waatoo to man jafa. te li des si waxtu daa bariyatul. wala na men ko waatoo siita sontam fana sonta ko waatoo te waxtu jot na man nangu naa loolu waxtu jot na. yo silam be mel laala gee dron fu mu ne nii dina taxawal waxtu fii ngum na kafo men ye ñing demo bayndi nang ñi nga ne ñoom ñoo ñëw pour teewoo ndaje bi alpha buñaari njamaale bi jan ni ko mbe kontelan si mool tron si trompé ah am na ay kilifa yi nga ne kilifa yu am maanaa ñu bëri nga xam ne ñoom fii te mënuma tuddee kenn ku nekk bu ma defee loolu naa juum musukunda nin ke kunda ci walum jigéen yi ak walum góor yi lefta fulay nge be je nge be tentuñ kontante la koto ba ke mba fulal nim bara mang leen a won ne gis naa leen yéen ñëpp te mang leen a gërëm yéen ñëpp mang leen a ne jërëjëf yéen ñëpp alien ne bango e, baake suñ teewoo bi jox nañ ko jox ngeen ko lu am maana te tàngeen mu mu foor bari même fango yen na patio diyandi wonte li suñ pati ɗi mu ne te ba eɗe ali alan kon tolla pati o taman sero mo kumuriŋol ti o liyo ham ne suñ pati ɗi misalam mooy yomba ak lem ñun dañ bëgg a ntolla eh, dañ bëgg a lem <laughs> ñun bëgg lem so al tol ye liyo ken na pati na na ralito bi yéen ñi ne yéen a indi biir lem bi ci biir ah, ndaje bi tey wala moom na musicien ti mel ni play ta bee yéenaay tegakat yi ak woykat yi ñi nga xam ñoo fi teewoo tega woyal ñu birin na fula kunda musicien olu jëlee ko si suñ mbokki pël yi na eh, eh, eh, jola kunda musicien olu ko si suñ mbokku yi saraxule musicien olu yi siko jaloolu a ah, yeneen tega yi ak euh, mel nu labanda da nañu pakin euh, pakin moolu <laughs> ak mbokk suñ mbokk ñu am ne fi mujjee borom pakin yi mbaa fole al nim baara baake al ale kato men ke kan na be ngodi ande maa ngi jërëjëf wax ñeen ñëpp ku nekk loo si teewoo baax na gërëm naa la ci ñin be ngodi yaata bari subawo sookuta mbay mbay mbay daane les yam fañi si koo danjang ah ndaje bi neex na lool wante fu mu ne nii ñaan bu ko defee ñu taxawal wax bi n saafaale ko ngirta ate dan nabila dow binale mangle na wadde ndu en tawi de ɓenen daña ɗinama de o dal ɗi mbara wato sin ala baraka jerejef watu jonna jerejef watu jonna